salaamaaleykum mbokk yi ñuy bàyyi xel fii si Jokko TV bu dee gan nga si chaîne bi invité naa la à ce que nga abonné te nga bës kolos bi ngir nga mën a jot les notifications en temps réel musiba naaru laay moo naroon am fii si Sénégal rawatina fii si Ndakaaru Jal Jóob Sangomar ab attanta acte teroriste la ñenn si ay ndaw doon waajal lu toll si fukki nit ak benn waroon def jëf ji war a fekk si ay cellule fii si Dakar ñin si jotagum teg loxo nag ñoo ngi bàyyeekoo Kaolack Bignona Gambie ñu fas yéene woon attaqué yenn zone si Dakar. bokk na ci centre ville VDN 3 si loolu nag ginnaaw bi ay traces yu ndaw commencé am ci mbir mi si la leen waa sûreté urbaine teg loxo ba tey waa sûreté urbaine li nu xamle mooy nemmeeku woon nañu ay cellule fii ci Dakar bokk na ci Pikine Yoff Kër Mbay Fall Zac mbaaw ñooñu nag lañu tuddee woon waa group autoroute à péage ndax ñoom ñoo ñu ñoo doon waajal lii di cocktail molotov yi ngir sànni ko ci autoroute waaye tamit nemmeeku waatoon nañu beneen groupe Parcelles Assainies VDN 3 lépp luy wàllu taal ñoom ñi ñoo ko géré woon fi mu nekk nag lu toll si ñaar fukki nit ak ñeent defeere gum nañ leen ginnaaw waa sûreté urbaine bi ñu si jàppee benn ndaw moom moo daal di yebbeeku daal di wax plan yi nga xamante ni moom lañ doon waajal waaye li leer ba leer moo yooxu dana jib fuñ ko foogeewul